bienvenue au studio tey suma invité tey vraiment bég naa lool tey ci lim ma àndil am naa satisfaction tey ci li nga xam ne wéyal na ma ko am naa satisfaction ci li nga xam ne génération consciente tëggal nañ ma ko Papa Diouf euh, bienvenue tey ci seetsi bi nga ma seetsi tey ci studio bi e vraiment kontaan naa ci euh, li nga ma seetsi quoi jërëjëf. waaw mais Tons maa la gën a kontaan. xam nga nag su ma nee tons moom. <laughs> mooy comme d'habitude. <laughs> c'est une longue naa bàyyi mu sedd. <laughs> non boobu moom nañ ko bàyyi ci biir. sinon mais Pape kontaan naa trop vraiment tey. Euh, li nga ma joué man personnellement li tax ma kontaan ci parce que dama dégg changement bu bëri ci sa musique. sa musique dama gis ni harmonie dafa gën a feeñ. Mm-hmm. sa musique dama gis ni guitare yi mélodie dafa gën a feeñ. y a moins de rythme parce que euh, ñu bëri dañ doon critiquer Pape Diouf musique am dafa bëri rythme alors tu as vraiment changé alors dama bëggoon nga présenter ma déjà la génération consciente après ñu wax ci changement boobu moi je trouve positif. waaw jërëjëf euh, bon xam naa ñi naan nag Pape Diouf musique dafa bëri rythme xam nga ñun nous sommes dans un pays boo xam ne euh, nous sommes des mbalaxalisés donc tey boo xoolee suñu jo suñu jaar-jaar suñu yoon ñi fi génn ñëpp mbalax moo leen génnee tey Papis Konaté buñ ko waxee identité mari marimba mbalax la Moustapha Faye noonu Lemzo jamono loolu donc nag liñ naan xaw ma euh, euh, doom bu xaw ma lan jàngaaniwul ndey jaay <laughs> donc comme que ñun ci mbalax lañu la ñu nàmp donc mooy suñu identité Euh, donc loolu touche touche boobu il faut que muy muy muy muy fee donc euh, mais euh, jamono bu nekk ak li muy laaj des fois boo waree mbalax pur et dur cent pour cent bu ko laajee il le faut si su fekkee ne aussi laaju ko nga war a liggéey ci beneen aspect beneen style aussi bon tu le fais mais li am solo ba am solo mooy background bi background bi nag mooy morceau bu ñu mbalax rek buñ ne tey morceau bi dañ ko war a futti soit dañ ko war a jazz wala dañ ko war a def afrobeat tu vois wala dañ ko war a def beneen style boo xam ne euh, style boobu la ñuy soxla rapidement gars yi dinañu. adapté adapté wu ba vraiment et que nag liggéey bu yàgg la papis complicité la. génération consciente ça fait léegi ñaata at. c' deux mille ba deux mille vingt donc vingt ans. vingt ans macha allah. <laughs> mine de mais Pape euh, dama bëggoon nga jóg rek. maanaam présenter ce groupe. ku nekk xàmmee visage yi parce que c'est important les musiciens te yaa ngi ni cheminer te yàgg na yàlla na sax donc euh, vraiment ce serait bien nga présenter ku ci nekk après ñu door waxtaan tuuti quoi waaw kii moom <laughs> kii mooy Mass xaw ma Mass Jimmy Mbaye laa koy wax wala Mass Lamine fay wala Mass Samba maanaam euh, ndaanaan la ndaanaan la actuellement xam nga man musique na kenn mënatuma si nax donc euh, vraiment euh, ku Lamine Faye nekk sa ginnaaw ay at. donc euh, xamee nga. donc kii mooy Jean Mermoz. te ak moom rapidement daal. voilà donc donc Jean Mermoz suma histoire ak moom. Ibra Thiam. Ibra Thiam mi moo ko découvrir donc bim ko découvrir ñuy def albumu yëngal gësëm. yëngal gësëm album bu mujj bii. donc euh, Jean déjà même boo xoolee ci nijaay euh, am na ay parti yoo xamante ni yu am solo yoo xam ne euh, sénégalais yi melomaan yi dañ koy dañ koy déglu di jooy hmm. moom moo ko joué donc il est calme mais pour man c'est le professionnel et que ñëpp ko ko nangul donc vraiment tey Ibou bu demee ba ne ma pap Jean mii jël ko hmm. man Ibou Ndour moo ma dàq joué clavier donc loolu grandeur la quoi donc euh, il est il est discipliné il est modeste il est pro et puis bon il ne il ne fait pas beaucoup de bruit <laughs> kii mooy Alioune waaw Baye Fall Baye Fall borom tëngéej lébu borom borom tëngéej donc vraiment ndaanaan la mi ngi nii Alioune donc vraiment euh, moom aussi wax dëgg yàlla Ibra Thiam xam nga Ibra moom mooy coach mooy moom mooy coach mooy consultant. donc moom mooy consulter. parce que c'est un grand musicien. mu yar nu depuis Lemzo jamono. kii lu lu mu wax ci musique kenn du ko dindi. moom yàllaa ko may loolu. ndax koo xamante ni yaa ngi yaroo ci kanamu Adama fay kanamu Vieux ak Faye Lamine Faye Rudis kër ga fa na nekk 24 hours sanc Lemzo jamono Alioune Mbaye Nder fallu Dieng Salam Diallo maada ba man Pape Diouf ma ñëw ñoom allié ñoom Moussa ñëpp jaar ci kanamam kon moom Capo la. donc El Capo. waaw donc moom moo andi Alune Alune aussi muy vraiment un très grand bassiste. Oui, oui. un grand bassiste moom aussi xam nga Papis génération consciente chance boobu la ñu am. Mhm. gars yi fi nekk ñëpp dañu yaru gars yi kenn maanaam am nañ discipline respecté nañ te suñu biir. Mhm. parce que euh, du affaire de leadership mais affaire de. taalibe la affaire de groupe la esprit de groupe la mooy Alioune donc vraiment mu mën trop nag li muy def macha allah vraiment et puis bi mu ñëwee aussi mhm. mu am li ñu apporter lu am solo ba pare li li gën a am solo si moom mhm. mooy nit bu baax la Alioune kii nag mooy Moussa Diouf sama xarit sama doomu baay <laughs> sa doomu baay waaw moom moom euh, avant muy liggéey ak man dama ko daan seetaan ci lamb ji mhm. su ma ko masaan déglu dama daan ñëw setaan si lamb su ma ko suma ma seetaan see làmb Moussa Diouf rek laay déglu mu mënoon a woy parce que buy woy moom ak dut sekk ndem si yàlla si yàlla na ko yàlla xare aljana seen tembre ñoom ñaar ni ma timbre dut sekk di def kii tembre am noonu la may def kii damay woy de mais man attanuma ko wër na yàlla dafa mën a woy <laughs> donc euh, ma ñëw ci cabine bi voilà kii nag mooy suul mhm. kii mooy Souleymane sa xarit. Mhm. nit ku baax a ngi nii. nit koo xamante ni euh, bu ko may wax sax si moom lu bari sinon dama koy catu. Mhm. ndax ki dem ba tuddee sa jabar doom. kooku fi ngeen àgg sori na. Mhm. vraiment mu apportel nu lu bari. je pense que ni tey Souleymane su may wax ci moom sax yow laay jàppale. ndax mën naa ne. yaa ko andi ci groupe yi mu toog nag yore ko téye comme tey ku yore doomam maanaam orchestre bi doomam la ko def donc vraiment euh, muy koo xamante ni ñun ñëpp aussi ñu gëmante sunu biir joxante cër joxante respect bu neexee ñi ngi gérer ànd ak suñu dignité bu naqaree aussi ñi ngi gérer ànd ak suñu dignité ndax àdduna lool rek moom moo fi am solo donc ànd boo xamante ni ànd bu dëgër mhm. ànd bu sincère ba tey ji suñu jon yàllay tey ñu dem bay tuddante ay doom kon donc loolu mooy yàlla na yéex da may suur rek mbaa ma suul la et que mhm. tey boo xoolee ci yenn groupe yu mag yi fi nekk mhm. loolu mooy seen slogan donc dañu ànd cheminer bu ma déggee tey ñu naan ànd nañu 30 ans wala ànd nañu 40 ans man damay tiit dama naan ñi ànd temps bi te bàyyantewuñu yàlla na ma yàlla defal sutura ba ñu may àndal ñu dem ba ànd quarante ans cinquante ans te duñu bàyyante amiin waaw moom mooy suul le chef d'orchestre hmm? léegi moo tax ma tuddee ko waaw Jules Diouf waaw bu la neexee man nga tuddee ma Pape Diop <laughs> Pape Diop mu jëf nag Pape Diop Jules Diouf coow li ok bon léegi Pape ñu jëm ci vraiment le Benjamin ki moy le Benjamin ah, Momo le Benjamin mooy Momo Momo tamit waaw Ibra Thiam ak Souleymane Diop ñoo ko andi. mais kii moom sunu doom la. parce que daf fi jàng si. donc euh, maa ngi fàttaliku jour bi jour bi ko jour bi ko Jules wooyee pour mu ñëw. boy bi mi ngi ñëw toog rek làqatu ko léegi maa ngi woo. gaay naan gaay mais booy bi kii ñëw fekk fi ñu nii kan la du ngeen ko wax mu dem. ndekete boy bi moom moo war a <laughs> mais mais mais moom sunu sunu doom la. mooy Benjamin. mooy Benjamin vraiment di booy bu discipliné mais nag boy bu garaaw. bien parce que mhm. jour bi mu njëkkee joué. Mhm. dama ko déglu rek. Mhm. ne boy bi li ma soxla mi ngi si biir quoi. macha allah mooy moomoo ñu ngi koy ñaanal yàlla. Euh, waaju ñàng ji ak ay lunette am mooy Modou Mbaye Modou Mbaye Tama. comme ni paa yi def ay Modou Mbaye lanette am Modou Mbaye ngi nii donc Modou Mbaye kii kii ak Assane Faye mhm. ñii ñoo fondement groupe bi Modou Mbaye bi may sos groupe bi lama ko baakan jox ne ma boy boole naa la ak Modou muy nit ku gore nit bu baax la nit ku gëm liggéeyam ba pare nag vraiment fidèle jërëjëf di ndaanaan kullu fadrin moom gala ñam benn la boo ko déggee e da xam ne kii Modou la moo tax léeg-léeg mu rëcc tëggal gars yi ma ne sama waajaa nga ki de sama waajala la galañu mag la <laughs> galañu mag la tegal foofu sa loxo waa léegi euh, kii nag moom waaw kii nag moom mooy sama fils non du ah kii sama fils la. non Papis. non yow da nga bëri fils. dama ma rek ma ma naa la ko jox bu ne mais kii moom sama fils la. <laughs> ah da bëgg a xëccoog ma. may naa <laughs> euh, sa digganteeg kii moom. non sa doom du musique waaw wax dëgg yàlla. Assane du bu ñëwee toog fii sax. wallaay dama koy ne euh, yow. ndeysaan. Pape ak yow dootul musique. wallaay dëgg ndax séq ngeen lu ne. lu ne dem fu dafa mel ni sax sa kër la dëkk. wallaay ndeysaan ndax tellement. bëgg bi mu la bëgg. ndax ànd bi ngeen ànd mu doon lu sincère. te man ma xam ko. gis nga bërki démb wax nag lu amul. damay wax ak frère am. Medoune. Mhm. Medoune waaw nekk ba London bërki démb. ñuy waxtaan ba may dugg ci Assane. ma ne ma koy ñaanal ma ne ko Medoune. Mhm. Assane mhm. dama koy ñaanal. ma ko rakk la boo xam ne. dara fëqul bëtam. dëgg la booy bu kalma ngi nii. booy bu am dignité ndax papis àdduna dignité rek. moo jara ut. moo jara ut ma ne ko Assane bu amee. kenn xamu ko. bu amul kenn xamu ko. bariwul dugg duggu bu nekkul këram mu ngi sama kër. kon kii moom mais nag comme que nee nga ma ma bàyyal ko nañ nañ ko séddoo rek. yow daal ne la wax nijaay nee ko nijaay nee ma papa. voilà jeex Euh, mais Pape Diouf jërëjëf vraiment lii mooy la génération consciente ils sont conscients et c'est une famille donc euh, la génération consciente longue vie ok Pape Diouf léegi dañuy dem toogi ci plateau bi waxtaan Pape Diouf nee na acca acca ñu dem <laughs> mais Pape waa mais vraiment xam nga yow dafay neex euh, ñuy waxtaan ndax yàgg nañu ay ah, complice lañu yow voilà mhm. vraiment ñu am respect suñu ci diggante vraiment mhm. ñu cheminer mhm. ba léegi sax ñu ngi ñu ngi ànd bu rafet euh, dama bëggoon rek euh, ap après nga présenter ma sa orchestre bi comme li may wax rek vraiment on sent maintenant les harmonies par rapport ak Jean euh, bi nga xam ne mi ngi fii on sent les guitares, euh, c'est super bien par rapport ak Gmas. La musique a beaucoup évolué. Tu fais beaucoup de répétitions ou tu fais beaucoup d'ateliers Waouh On fait beaucoup de répétition Papis, parce que xam nga dafa am yenn responsabilité yoo xam ne bu nekkee si sa mbagg euh, mënatoo nelaw ba yandoor donc mënatoo arrière et que tey euh, dafa am nouvelle génération boo xamante ni mooy ñun ak suñu rakk yi nekk suñu ginnaaw tey dañu war a protéger boo déggee ma ne dañu war a protéger mooy euh, tey musique bi dafa toll foo xam ne industrie la donc te am na yenn euh, maanaam euh, yenn background yoo xamante ni bu la yàlla dafa lay sutura ba nga am ko maanaam banque de données la banque de données boobu chaque fois rek war nga mën a rewind andi leneen donc euh, tey xam nga bi ma lay présenter groupe bi sax am na ñu des. voilà ben parce que tey boo xoolee euh, am na beneen beneen beneen claviste bu tudd Ousmane. donc euh, parce que tey. Ousmane Faye beneen esprit la doon def on n'avait pas on n'avait pas besoin de jouer avec trois clavistes mhm. am na aussi côté percussionniste yi baaka nekku fii mhm. donc moom dafa dem bloqué wu Allemagne quoi <laughs> donc moment Covid bi ndeysaan mi ngi ko fekk France. Mhm. xam nga moom it dafa nekk ci ay projet yu am solo demoon di régler ay détails yàlla dogal saan euh, Covid bi am ñu tëj euh, aéroport yi mais mi ngi ñuy ñaanal quoi donc dem Demba Ndir aussi moom it vraiment euh, mi ngi ci groupe bi di suñu rakk bu baax moom aussi donc sama diggante ak Bakkan àdduna bi yëpp xam nañ ko. y a aussi les les les les les les cuivres. donc les cuivres euh, ñan ñoo lay jouer le cuivre. donc ñooñu son sont des congolais donc euh, vraiment il font du bon boulot. Choupi et Emmanuel donc ay professionnels lañu. Euh, ay professeurs de musique lañu. ñoom aussi bokkuñu askan. Mhm. mais dañu ñëw rek adopté wu ci sunu musique mamaane. donc moom mi ngi fii xam nga donc mais comme tey esprit bi ñu doon def. Ah, laaj ko wàññi effectif bi. voilà donc ñoom ñëpp ñu ngi ànd Youssou. moom moo ñuy balaxal Youssou Diagne donc vraiment ñoom ñëpp papis ñi ngi ci groupe bi donc génération consciente famille la donc tey boo gisee ma ne la tey euh, musique bi fi mu toll dañu war a protéger ndax tey am na loo xam ne tey maanaam euh, léegi dafa bokk si si si ci si si symbole bi si symbole musique bi donc tey euh, mën naa ne boo gisee bi may ñëw net non Papis tey dama koy defal plaisir morceau yi ma koy jouer mooy morceau yi nga xamante ni am na ci yoo xam ne moom moo ko arrangé am na ci yoo xamante ni même bu ko arrangé wul bokk na ci ci production boobu et que ko doon jouer di ko liggéey xam nga dund studio yi moo tax tey ma ñëw jouer la Sadio. moo tax tey ma ñëw xam nga joué partira looloo tax tey ma ñëw joué la dégg daaj la cuuc cuuc comprendre nga joué la Yéli Kumba Fall Ndiaye mhm. donc tey on a fait huit yoo xamante ni ba huit morceaux yoo xamante ni presque joué la joué la sax euh, euh, kii euh, nu mu tuddati fond masi fond musical lu lu maalaw maalaw xam nga ñu ngi ko créé ndeysaan bi ñu nemee Rome sunu soirée bu metti ba ñu ñëw egg si ay 11h ma tiit fekk ndeysaan boobu promoteur bi ndeysaan comprendre. walaay comprendre. ñu dem yóbbu ñu ci salle boo xamante ni papis. amul backline amul backline. ma yërëm la ñu góorgóorlu rek def ma pap yow demal nga nelaw tuuti keroog yaa installé affaire yi mais li ñu mbala keroog. su ma tourné xool la mais ma ne attends. ak ndaw yi mooy génn ak sama carax. <laughs> <laughs> mais Pape jërëjëf euh, vraiment. ça se voit que euh, nga man damay bëgg ngay mel ni chaque jour mane ne Pape Diouf. bu taxawee ci caméra yi rek. Eh. mu sérieux. Eh. te sérieux wul. Pape musut a <laughs> sérieux day naxaat. <laughs> yaa ngi may tooñ nag bàyyi ma de. musut a sérieux yow xam nga man dama sérieux. <laughs> mais Pape dégg vraiment bon c'est comme ça toujours xam nga nga entente ak sa sa groupe. macha allah la génération consciente. Eh. qui grandit. Hmm, te les années passent. nga am présence macha allah li tax tey ma lay wax macha allah parce que. Mm. beaucoup de groupes nekk nañ fii mm-hmm. am benn niveau bu nu àgg. Mm-hmm. après mënuñu gérer groupe ba groupe tas. Mm-hmm. moo tax ma ne macha allah tey tu as su gérer ton orchestre ba tey jii yaa ngi sur euh, ci ci ci scène musicale bi. Euh, di def de grands projets. Mhm. l'homme au grand projet laa la tuddee tey nga waroon a def. Euh, Dakar Arena. Dakar Arena. Mhm. mu doonoon lu rëy loo xam ne lu lu loo xam ne da ko gëm. Mhm. gis nga loo gëm rek. day dem. dëgg la parce que dinaa dégg nit ñi di naan fii pape lii ak lii ma ne leen mais affaire yi gëm la rek. man loolu laa loolu laa gëm man man lu ma gëm. ba bëgg fa àgg. bu neexee yàlla dama fay àgg. Mm-hmm. bu neexee yàlla. Mm-hmm. te nga gëm sa bopp nekk ci tracé boobu ba waroon a def tey Dakar Arena tey maladie bi vraiment ñëw. Mm. bouleverser sa programme. Mm. mais bu dul woon maladie bi maanaam à part Dakar Arena lan la woon say projet ci année deux mille vingt bi. waaw eh, Papis euh, xam nga àdduna moom boo ci nekk il faut être ambitieux en même temps aussi euh, esprit de groupe bi nga xamante ni nekk na ci ñun muy la génération consciente léegi dépassé na groupe génération consciente léegi mouvement la euh, ñu am nag fu nu teg suñu bët am fu nu teg sunu bët parce que euh, je pense que ni groupe boo xamante ni démarré na depuis deux mille ba deux mille vingt du ay caaxaan. liggéey rek moo ñu fi indi du leneen liggéey kese kese kese moo ñu fi andi ba pare nag ñuy sant yàlla. ndax tey papis bu ñu demoon ba sax ñu ne ah non Pape Diouf man découragé naa wala dama bëgg a bàyyi musique mënatuma ko xam nga lu tax mënatuma ko fans yi ndax tey nekk ginnaaw yëpp mais bien sûr parce que tey dafa am ñoo xam ne dañu bëgg Pape Diouf dëgg la dañ ko bëgg te yàlla tax di consommer musique <laughs> comprendre nga. ñii ànd ak yow depuis vingt ñu ngi ak yow di consommer musique Pape Diouf gëm ma gis nga mm-hmm. ñooñu tey ah. Mm-hmm. xoolal fu ñu nekk si àdduna bi ah, dama leen di wax one mm-hmm. love. tey ñooñu. même su ma waaw même su ma bëggoon ne gars yi bon maa ngi décroché quoi am na benn jour ma ne xaaral comme que léegi buzz dafa xew damay jékki-jékki rek ne damay woote conférence de presse bàyyi naa musique <laughs> ma ne non loolu su ma koy wax du ma yeggal parce que gars yi dañ ma fekk foofu parce que xam la moo tax. nit ku nekk ak ki la bëgg. waaw waaw mbëggeel moo foor léegi nag ñooñu ñoo tax tey xoolal ilaa yow mi yabasoona tànk ñi ngi am bakkan bi mi ngi noyyi ñuy am kàttan dinañ ci boole liggéey bu sérieux ba musique bi lu mu laaj dañ ko koy jox loolu nag moo waral papis pour ñun ñu ne lu ñu xalaat rek ne war nañ ko mën a def pour le plaisir des sénégalais dañ koy def Dakar Arena dañ ko am muy bijou di foo xam ne bon bi ñu bi ma naan dañuy dem foofu am na ñoo xam ne dañ ne d'accord nañu am nañu am nañu ne d'accorduñu mais tey boo xoolee Dakar Arena projet projet Dakar Arena sax du man de Matar moo ko moo ko créé. kan mooy Matar. Matar Diop Subatel sama rak mooy ki may manager bi mu nee Dakar Arena dama ko ni i booy xanaa da dof parce que mën na ko mën na ko mais booy foofu kenn demagu fa kenn dëkku fa mu ne ma grand. non il faut nga def Dakar Arena donc ma toog ma ne ko ok man dinaa leen revenir dem sama kër toog xalaat xalaataat xool les tenants et les aboutissants ma ne non fii pour man challenge bi mooy li ma naan yaay sopp naa sa melokaan ngir sa jikko ju rafet ji fu ne nga def fa dara dañu war a fekk fu dara amul ñu def fa dara ñu loolu lañ gëm looloo waral ñu ne nañ leen dem Dakar Arena. yàlla nag defal nu si woon sutura. ndax papis salle boo xam ne quinze mille personnes lay def. nga dem ba largué onze mille billets. mu dese la maximum quatre semaine kon mën naa ne yàlla defaloon nañu sutura et sunu challenge. moo nekkoon de pas def sold out. mais dem jouer. ndax nga tëgg mu fees. yàlla rek moo ko mën. nga tëgg aussi du fees yàlla rek moo ko mën mais lu la sa borom wërsëgal demal nga tëgg nga jël nga bégal say fans ñun ñun option boobu la ñu amoon mm-hmm. donc ñu ne nag dañuy ñëw ak lu bees ndax streaming bi nga xam ne euh, ñun ci kàttanu yàlla ñoo ko njëkk a def mm-hmm. ci musique Sénégal mm-hmm. ñun ñoo ko njëkk a teg à part làmb ji làmb ji dañoom ñoo ko fi njëkk def donc combat yi bëri fii sénégalais yi dañ ko seetaan dañ ko en streaming. donc ñun ah, on s'est dit que hmm. bon gisaguñ ko ci musique bi nan leen ko def si 4 avril bi. Hmm. donc ñun euh, loolu lañ leen doon defal muy comme sa benn surprise boo xam ne tey dañ doon wax naan euh, événement bi. Hmm. gars yi dinañ ko mën a seetaan via streaming. parce que boo xoolee nekk à l'extérieur ñi que boo xoolee léegi Papis. musique bi amatul xaalis bi mu war a am et que musique industrie la. industrie la tey sur le plan international gars yi ñu ngi ciy make money mais Sénégal. ils peu en retard voilà non non nous sommes un peu ci côté boobu. waaw ci informatique bi ci technologie bi technologie bien sûr donc nga gis ni que ñun on s'est dit que nan leen ko valoriser. yàlla dogalu ko mais nag jaam ak pexem yàlla ak dogalam. Covid bi ñëw. donc Covid bi ñëw aussi ñu gis ni que vraiment. yeneen euh, projet yi. yeneen projet yi. voyage bi ñu paree euh, le 4 avril. ñu ngi waroon dem le 15 mai bi. fan en Allemagne. en ñoo waroon ànd. waaw waaw le festival de Dresden donc foofu moo waroon fa jouer ak Sting. ak Eric Clapton. Mhm. donc. Euh, mais Pape mais Pape kan mooy Birane Sarr. waaw Birane Sarr mooy suma agent bi nga xamante ni euh, suma mag la donc kooku Papis je me dis ni sax tey sama diggante ak moom dépassé na musique mais kooku suma xarit la suma mag la suma kilifa la donc muy nit bu baax koo xam ne xooleewu ma artiste mais daf ma xoolee rakk daf ma xoolee jarbaat daf ma xoolee doom muy ku ma fonk ci crédibilité am fidélité am ak loyauté donc euh, muy nag ku am expérience ci musique ndax dem Amérique Euh, dafa compliqué léegi. torop ndax euh, loi bi lu mu laaj depuis Trump ñëwee c'est compliquer mais yàlla dogal na moom am na lay sin donc depuis 2013 la ñu commencé liggéey euh, ñuy liggéey di liggéey nag liggéey bu rafet wax dëgg yàlla demandoo nañu man ak yow tournée ak moom 2016 def nañu suñu tournée boobu suma jumu def nañu ay 13 dat def nañu pas mal de festival def nañu le festival de dine dem nañu dem nañu Chicago Old Town dem nañu aussi euh, Minnesota def nañu Schenectady def nañ ko man ak yow suma jumul donc euh, demoon nañu aussi euh, le festival de Wisconsin xam nga donc vraiment ak moom ma ma ak moom ma ma ma ma ma ma am expérience su festival donc parce que bi mu àndee ak moom ci laa am expérience festival et que chaque fois boo jàngee lu bees day gën a yokk sa xam-xam day gën a yokk sa maturité donc 2016 ñu àndandoo ak moom 2017 2018 aussi ñu defaat tournée ak moom donc 2020 bi aussi da ngeen euh, a def dañu waroon def tournée une tournée mais par rapport ak pandémie bi ñu waroon dem aussi euh, le festival de Dresden en Allemagne mais bon yàlla dogalu ko dañ ko reporter donc. Euh, voilà mais bon ñu ngi jaajëfal biraan vraiment te di ko massawu aussi ce n'est que partie remise ah parce que vraiment léegi feebar bi dañ. Mm. ñu reprendre activité yi mais Pape activité avant ñu koy reprendre fis euh, kii bi nekk nii euh, feebar bi nekk nii. Mhm. man nan ngay dundee say journée parce que fi mu nekk nii namm nga woy tey ñëw nga ci studio bi Pape noppil Pape ngay wëy rek Pape namoon nga woy <laughs> waaw mais xam nga euh, feebar bi ak musiciens yi. <laughs> walaay ndeysaan namoon nañu loolu. gars yi dañu namante woon. mais nag gars attention ah. ñu ngi sunuy masque donc mais comme que interview la ñuy def on est obligé mais nag. xam nga yow def naa fi gàllaaj boo xam ne gàllaaju rey na corona du waaw anti corona. <laughs> donc Papis donc comme ni nga ko waxee. <laughs> oui euh, comment tu vis euh, tes journées quoi parce que c'est un peu compliqué. c'est donc déjà man maa ngi xalaat ñi nga xamante ni feebar bi dal na leen. ñi ngi cloué ci lal ñu war leen faj ñu war a dellu seen njaboot et que bu nu delloo seen njaboot nga la waaye leen leen daw. waaw loolu nag euh, jar naa jar naa waxtaanee nag. parce que nan leen nan leen teeroo. nan leen teeroo. comprendre nga ñi nga xamante ni aussi yàlla jël nañ ci seen bakkan yàlla na leen yàlla xare aljana mm-hmm. vraiment di féliciter médecins yi. Mm-hmm. liggéey nañ ci liggéey bu am solo. wax dëgg yàlla di wax ni aussi euh, àdduna bi la la la dal. donc li nga xamante ni dafa dal àdduna bi euh, dañuy ñaan yàlla rek yàlla saafara ko mm-hmm. mais. pour man kenn mënu la ci wax loo xam ne tey maîtriser na ko donc parce que euh, mais jàngat bi ma ci am mooy euh, da nan delloo suñu bopp si yàlla parce que papis tey yow mi am milliard ak man mi yore mille francs ñoo bokk tout le monde est en danger gënoo ma gënuma la ndax yaa ngi yor say milliards yaa ngi ñaan yàlla na nga mucc ba mën ko jariñoo man maa ngi yor sama mille francs maa ngi ñaan yàlla naa mucc ba mën ko jariñoo kon nañu ñaan yàlla yàlla dindi fi feebar bi ba pare nag ñu gën a booloo. waaw gën a booloo. bokk ndey bokk baay. tey dimbalante. te yàlla tax ku tane sa moroom rek nga dimbali ko te yàlla tax mais je pense que ni tey sénégalais yi euh, jël nañu affaire bi porté ko ndax boo déggee ma ne sénégalais yi jël nañu affaire bi tey porté ko euh, mooy vraiment. xoolal da ngay gis bi nga xamante ni nee nañu joxe nañ diggal ne ku nekk na takk masque da ngay gis tailleur yi ñawatuñu dara donc loolu dafa daw suma yaram masque rek di jël di ko distribuer di ko maye. nit ñi ñi ngi ñi dimbali néew di doole yi donc vraiment xeetum solidarité la rek solidarité la donc vraiment sant yàlla di ñaan nag yàlla feebar bi jóge fii ñu gaaw dellu suñuy activité euh, ñu gaaw a dellu ci suñuy activité Pape Diouf message bi nga xam ne joxe na ko mais Pape on voit que bon avant mm -hmm. on ay festival yu mag comme ay festival Wamex yoo xam ne bien sur que festival yi dafa am artistes yi nuñ doon demee mhm. artistes yi dañ daan jóg di dem festival mhm. gouvernement yi jàppale leen. ministère de la culture jàppale leen. parce que festival yooyu ñoom duñ la fay. yow yaay jóg nga fay say billet d'avion. nga fay say hôtel fay say musiciens nga xam ne loolu budget la. budget bu énorme. oui léegi alhamdulilah ba nga am maison de disque. sa maison de disque seen relation nan la dikkee ak nan nga ñëw tey vraiment ba signer ak sa maison de disque et kan la sa maison de disque. damay dégg rek maison de disque <laughs> waaw loolu nag bon c'est une longue histoire sama maison de disque ni mu dikkee. Papis mooy li ma la wax sànq. liggéey la boo xam ne kan la sa maison de disque. Universal Music Universal Music Africa. mais Universal c'est mondial. c'est mondial. Euh, suñu siège nag moo nekk Afrique mais sama maison de disque ni mu dikkee. Mhm. liggéey moo ñu ko may. moo leen ko may. man dama yàgg gëm liggéey. dama yàgg gëm liggéey donc moment bi nga xamante ni tey euh, man ak Maxtaar ñi ngi toog Paris di programmer Bercy ci la ñu doon programmer disque international mu nekkoon ñaari projet et projet biñ koy def teguñu ko fenn ci ngëm-ngëm rek lañ ko teg benn deux heures matin la ñu toog sama óolu hôtel nii ci suuf man moom ak sunuy quelques xarit. di ci waxtaan ñu ne bon ma ma grand il faut nga def Bercy ba pare il faut ñu def disque international noonu la projet bi dikkee ñu ne ok ñu ut producteur producteur bi ne mën nañu jàppale pour disque bi mais Bercy man awma maanaam disque boo xamante ni sur le plan international mooy base boo xamante ni dinañ ci mën a wéeru pour ñoom ñu mën a fay costion bi parce que caution Bercy du lu ndaw mais ak sunu xol yu ànd mm-hmm. ak aussi gëm-gëm yàlla defal na sutura mm-hmm. ñu am producteur boo xam ne duma tudd turam mm-hmm. jël studio am ko en disposition ñu am suñu benn partenaire bu ñuy wax Papi coo vraiment benn congolais boo xam ne moom it dafa ma bëgg di xaritu Maxtaar moom it mu ñëw ñu taxaw uti producteur bi ñu utee producteur producteur bi xamal nañu ne mën nañu liggéey ak moom disque bi kenn du fay kenn ñu ñooy liggéey ku nekk investir par rapport ak Bercy bi moom vraiment munu ci engagé wu parce que c'est lour c'est lourd mm-hmm. donc ñu ñuy def suñuy dugg duggu parce que tamit ay sénégalais lañu ay doomu aadama lañu projet lañu am mm-hmm. dañ ne projet bi kat boo ko bëggee réussir fii ak fii ak fii ngay jaar ñu woote réunion à huis clos ma ne gars yàlla rek a fi nekk ak suñuy ñaanu waajur Bercy ci kàttanu yàlla buñ ko gëmee dinañ ko def dinañ ko song te dinañ ko daan donc ñu nekk ci daj ci nag lu ne mais yàlla mi dara tëwul defal nañu kattanal nañu ba ñu réussir seen Bercy bi Bercy bi album bi aussi ñuy soox kañ ngeen waroon génne album bi Pape. parce que ba léegi ay yi dañu yàkkamti parce que xam nga. mais Papis on voit que. Mhm. Euh, def nga yenn sortie waaw ne euh, vraiment ci sa album am na. ay grands artistes yoo xam ne def nga ay duo waaw xam nga te boo gisee li tax ma kii parce que gars yi yàkkamti nañu bu baax gars yi fi ne dañu assoiffé album bi mais xam nga tey boo nekkee ci major bu mag ñooy gérer monopole bi c'est vrai que nag yow da ngay wax sa xalaat ñoom aussi ñu wax seen xalaat mais du yow rek yaa fay nekk comme artiste donc. Euh, step by step lay doon planning quoi dañoo am seen seen planning pare par rapport ak tey ñun suñu album on s'était dit que bu ñu paree dañuy def premier single mooy. ele est ñu génne waat deuxième single muy Paris Dakar troisième single bi ñu waroon génne nag moom mooy waroon àndandoog album bi malheureusement bi nga xamante ni Covid bi ñëw na donc euh, lépp la bloqué donc actuellement ni ñi ngi xaar yàlla dogal affaire bi jeex mais par rapport ak euh, tey Universal euh, on avait soixante seize dates yoo xamante ni waroon nañ ko paraphé mais yàlla dogal na euh, xam nga ak Covid bi. donc mais soixante soixante oui mais non perte guloon ko. si parce que après lii. je pense que les gens vont essayer de se réorganiser. waa mais xam nga du bokk. parce que xam nga euh, date bi nga xam ne kale nga ko. kale mhm. say saal. Mhm. def li nga war a def ba pare donc bu fekkee ne par exemple tey ci soixante seize dates yooyu. le mois de septembre ñi ngi waroon nekk Olympia. Olympia oui, oui. donc c'est c'est donc ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne waroon nañ ko def yooyu yëpp donc yooyu yëpp c'est tombé mais dañ koy sante yàlla parce que li tax ñu koy sante yàlla mooy nit looy yóotu fekk jotoo ko rek gënul ci yow. la mais li am solo. Mhm. mooy maanaam bakkanu doomu aadama yi. donc tey ba Olympia bi déjà yóbbu nañ ko 2021. xam nga trois avril 2021. buy ñëw neex rek voilà donc mais euh, par rapport ak Universal donc euh, famille la ñu. famille la ñu des fois dañuy def ay rencontre rencontre yoo xamante ni tey ay showcase la mais showcase yooyu da ngay gis leneen lu bees parce que àdduna chaque jour rek njàngat la da ngay dajeek ay artistes yu mag yoo xamante ni da nga leen di rencontrer. ñoom it peut-être de vue nga leen di gis ñoom it ñu lay gis de vue mm-hmm. mais bu ngeen toogee waxtaan donc respect bi day daw et que da nga naan ah mais man kon war naa gën a góorgóorlu parce que waa ji dama ko gis donc suivre par exemple tey am na benn artiste bu ñu wax Singila donc mm-hmm. man dama ko doon gis sa Voice mu nekk koo xam ne dafa mën a way dafa bokk ci sa album non bokkul suma album mais ñoo nekk Universal donc bi mm-hmm. ñuy def suñu showcase Abidjan moom dafa balance ma toog di ko setaan waaw ah, c'est un grand ma toog di ko seetaan mu impressionné ma. ah moom it moom it nga wéy nga wéy ko. bi mu wàccee. <laughs> nga wéy di ko xam nga ñoom ay boss la bi mu wàccee gars yi di ko solal mantoom. ma di mën der rek mu ne nii gëstu xam nga ma gën a defaraat baat bi. Euh, expliqué nu der bi mooy <laughs> nii la nii la. Mm-hmm. nii la nii nii la anta maali gànna paal maa jigéenooy biram rek sa waay gëstu voix bi garaaw mu mu ne ma nii ma ne ko yow aussi xam nga vraiment fierté la fierté la jouer bokk scène bi le soir showcase bi jeex ñu dem club xam nga waxtaan enjoy xam nga vraiment mu apprécier ma man ma apprécier ko donc je pense que ni loolu mooy Afrique loolu mooy échange donc vraiment ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni incha allah rabbi ñi ngi ñaan yàlla Covid bi jeex ba ñu entamé ko mais y a énormément de choses yoo xamante ni à l'avenir donc ñi ngi ci mais instant bi nii euh, coronavirus mooy li nga xamante ni moom moo moo moo moo bon fi mu nekk nii euh, Pape man nag moom corona bi moom. Eh. faale wu ma ko ndax. Euh, yàq na yàq na lu bëri yàlla de dee. <laughs> gaa ngi koy moolu nag. non dinañ ko moolu. gaa ngi koy moolu euh, vraiment Pape Diouf euh, c' est un talent boo xam ne te fierté la Sénégal c' normal que ñu ñu mën ci wax man je suis je suis apte à le dire. mais Pape Diouf hmm, fierté la Sénégal ñëpp xam nañ ni vraiment. c'est un très grand artiste macha allah Pape Diouf tey ñëw nga ma seet si bon ci studio bi. Mhm. bon ñu jël waxi corona bi teg ko fële. waxtaan waxtaan musique. parce que vraiment tey macha allah ñu nga def tey huit titres. bon man ci huit titres yi maa ngi ne. live enjoy. waaw. parce que gars yi foog ñu xam ni. waaw. Pape Diouf dafa delluwaat encore dix ans avant <laughs> maanaam dafa gën a rajeunir. non c'est que <laughs> parce que li nga xoolal non xam tax may wax loolu. gars yi xam nga tey da nga woor. gars yi naan non Pape Diouf est-ce que woor na. mais Souleymane. gars yi naan la mais Pape Diouf nu mu demee noonu. parce que macha allah la voix elle est là. malgré yaa ngi yaa ngi wëy namoon nga woy bi. trop mais macha allah la voix elle est là. et puis tu as changé. sa façon de chanter affaire yi gën na dal affaire yi gën na posé mélodie yi comme nit ñu la ko xamee gën nga ko génn xam nga moi j'ai été séduit par rapport ak huit titres yi nga xam ne andi nga ko te àddina bi yëpp war ko déglu mhm. boo ko war a génne euh, comme li may wax rek Pape maa ngi lay jaajëfal ndeysaan tey ci seet si bi bienvenue au studio mhm. et puis di jaajëfal maxu nga xam ne sama sama waay la sa sa waay la waaye ñëpp la maxu moom ñëpp ko sonnal c'est normal parce que nit ku baax la et puis euh, ñu gërëm ñi nga xam ne ñëpp mhm. ñoo nekk si ginnaaw mhm. parce que chaque jour man c'est une bataille boo gisee man ànduma ak yéen woykat man sama ànd ak musicien yi la. non yow moom. waaw j'ai toujours été comme ça yow moom tu mais parce que. xam nga euh, mooy li may wax tout le temps euh, nit ku nekk ak sa melokaan. yow danga yàgg gëm musique danga yàgg gëm musique yàgg gëm aussi que ni un instrumentiste. danga nga war a fexe ba teg dara. dëgg la Papis yow loolu da loolu parce que parce que nit ki boo gëmee dara. Mhm. allah kulli alin loolu da lay fekk si. donc euh, leadership boobu da ko yàgg incarné ba tax tey je pense que ni musiciens yi xam nañ loolu ci yow et que yaa ngi wër di defar ñi nga xamante ni dañu informel vraiment yaa ngi leen di coacher ñi nga xamante ni ñi ngi ci biir yaa ngi lëkkaloo ak ñoom di def ak ñoom coalition parce que àdduna moo toll foofu lu amul coalition rek du dem mhm. donc je pense que tey ku mel ni yow musique sénégalaise laaj na ñu lay déglu kilifa yi tamit laaj na tey ku mel ni yow ñu lay woo di la déglu maa ngi koy wax bërki démb Bakkan ma ne ko tey Papis euh, Bakkan mhm. musique bi fi mu toll tey ci instrumentiste yi mhm. ku lim di nga juum mhm. mais ñi nga xamante ni tey côtoyé naa leen mu leer ma ni liggéey nañ fi lu bari Papis bokk na ci yow Bakkan bokk nga ci Ibou bokk na ci. Mhm. Souleymane Diop bokk na ci. Mhm. tey ku mel ni euh, grand Jimi mbay wallaay ku mel ni tey grand lamin fay mhm. ku mel ni tey ndeysaan Habib Faye ndem si yàlla si. comprendre nga. Cheikh Tidiane Tall donc père Cheikh <laughs> grand Omar Sow. parce que tey euh, euh, Baba Amdi. ndax réaliser ngeen fi tey loo xam ne. dootul dootul dañ. album yoo xamante ni tey ay dafa dafa sénégalais yi dañ ko bëggee. et pourtant xëy na xamuñu leen. yéen a ngi si ginnaaw. Mm, mm-hmm. comprendre nga donc tey euh, doon naa ñaan. léeg-léeg euh, gars yi di leen déglu. parce que di da ngeen nekk si terrain bi. Mm-hmm. nekku leen à l'écart mais yéen a ngi si biir terrain bi. et loolu saabu du fóot boppam. tey mënu leen taxaw di wax loolu. mais tey ku mel ni man ndax nag. ah cheminé naa tuuti ci musique sénégalaise. Mm-hmm. ku mel ni Moustapha Faye aussi. Mm-hmm. donc tey ku mel ni man je suis mieux placé. pour le dire pour le dire. et je le di je le dis librement. donc vraiment euh, ndax musique bi moo leen soxla. Mm-hmm. et que am na beneen génération buy ñëw. et que ñooñu buñ leen suivre. je pense que ni tey musique bi non du dellu ginnaaw. et que loolu lu am solo la. Pape Diouf sa dernier mot ak tàggatoo parce que xam naa ni. buñ fi toogee caméra yi dinañ filmer dinañ fi nekk di wax ba suba. sama bët yaa ngi fóonante te ma ma fi ma <laughs> léegi la dernier mot vraiment Pape. Euh, di la jaajëfal. encore vraiment. merci Papis euh, ci ñëw studio. ñëw def sa live. wane sa talent wane talent wu orchestre bi te man de euh, signé naa 100 pour cent positif. yow ndaanaan nga. waaw léegi daal Pape euh, tàggul euh, nit ñi comme ça nga tëj def ñaan bi comme on <laughs> tëj rek comme ça. mais mais mais tàggatoo bi rek mooy je te remercie yow aussi suma grand frère nga. ngay nit ku baax ñu dund lu bari. maa ngi fàttaliku bi njëkkee ànd Angleterre c'était en 2003. boobu génnee ñu sax partir. ma ne la Papis dama bëgg nga ñëw jàppale ma. Mm. rejoindre suma groupe. nga ne ma Pape dañu nekk tournée nii mais bu nu ñibbee dinañu toog mais dinaa la jàppale et bu boobaa incha allah di nga xam ne dugal naa sama loxo ci affaire yi donc boobu ba tey aussi dara ñaawul franchement mën naa ne sama carrière man ak yow ñoo ko ànd dem nañu fu nekk ci àdduna bi <laughs> kon tey plaisir la aussi euh, may échanger ak yow et ba tey yaa ngi biir génération consciente donc donc vraiment euh, et que ñu am ay projets yoo xamante ni ñu ngi koy liggéey man ak yow parce que c'est pas la première fois ñuy liggéey yàgg nañu liggéey on a beaucoup de projet yoo xamante ni ñi ngi à l'ombre sénégalais yi ñu ngi koy xaar donc sénégalais yi aussi maa ngi leen di jaare di leen baalu àq ndax loolu sax laa waroon njëkkee di leen baalu àq ci weeru koor bi te di leen baal àq képp ku xalaat ne rek tooñ naa la jéggalu naa la baal naa ñëpp yàlla boole suñuy xol boole suñuy wërsëg def ci réew mu jàmm àdduna bi ñëpp am jàmm ba feebar bi nga xamante ni tey moo lëmbee àdduna bi sunu boroom saafara ko ñëpp delluwaat ci seeni activité yal na yàlla def jàmm asalaamualeykum wa rahmatullah amin et puis euh, ñu tàggatoo pour un autre numéro bienvenue au studio ciao